dañ fi ñu woon tey doon def si visite ci sinistre yi ndax dama yaakaar ni lii bu dalee ci ñu mel ni ñun ñëpp la dal suñu kaw ndax Sénégal benn bopp la ñu bokk ci njabootu président de la république mu am rappel bu mu lancé ne na nit ñi dem jàppale ji di nekk ci ndox mi ñun nag amuñu lu bari ay communicateur lañ mais je pense que ne du dañoo war a tàllal loxo rek ñu ñuy jox rek déedéet ñun tam ay citoyen lañ ci réew mi lañ bokk war nañuy mën a poser ay actes yow allant vers le social. damaa yaakaar ne sinistre yi ku fi ñëw waroo fi indi ay waxi kese bu ñu waxantee dëgg rek waroo fi indi ay waxi kese waroo fi indi ay waxi kese waroo ko politiser da nga war a ñëw astu sa nga am nga joxe ko ci te yàlla rek tax nag waaw te xam ne lii ni mu dalee nii mën na laa dal Sénégal loolu la soxla. Sénégal soxlawul ay ak ay xiro ak ngaayo may lancé nak ñom di ñaan ci li nga bëgg defal nañu ci yar ak ak dal jël exemple président Macky est un modèle fa bañ bañ euh, vraiment c'est un geste qui nous qui nous va droit au cœur parce que euh, ils font partie des premières associations qui sont venues nous rendre visite et c'est très symbolique euh, comme il l'a si bien tantôt, euh, un griot ou un communicateur, en général, dans le, au Sénégal, bon, on les connaît comme des gens qui demandent. Mais aujourd'hui, ils nous ont prouvé qu'ils sont de tout cœur avec la nation, ils sont de tout cœur avec nos sinistrés. Et cette situation, c'est une situation très déplorable. il y a des familles qui sont dans le désarroi. Aujourd'hui, c'est eux, mais demain, ça peut être nous-mêmes qui sommes là. Alors, c'est important euh, de cultiver ce qu'on appelle la solidarité, euh, l'entraide. D'ailleurs, c'est ce que le Sénégal connaît.